لا إله إلا لا لا إله asalaamaaleykum bokki Sénégal asalaamualeykum bokki Thiès bu ngeen déggee si karsoos rek seen xel am na fu muy dem fan la jëm mooy baat bi nga xam ni dem na jàkk dem na armel ñu am lu ñu dégmal nag loolu mooy lan mooy fas yéene ñaanal way dawlu yi at mu jot ñu koy def fan lañ koy defee ñoo ngi koy defee ci kaw Kawsara taaxi kaw ma wax ni dàkkanteel boobu rek rafet na njort lool ca neex naa dégg sëgi taaxi kaw ak kaw Kawsara taaxi kaw mel ni jannatu mahwa nga dem fa naan ci ndoxam Kawsara sëg yooyee moom lañu am yéene incha allah le premier décembre di ajjuma nañ ko daan defee rek teew ca barab ba yendoo fa ñaan xëy bu ñu xëyee di jàng alxuraan nekk ci salaatu ala bi ba mi di jot ñu ñaan ndax ajjuma ji loolu nag mi ngi jóge ci koo xam ni sunu doom ju baax la di borom xalaat bu rafet di alaaji Alioune Thioune mi ñu ko àlla tapissier di taalibeeb sëñ Bassirou Ndiaye mu Cheikh Amadou Ndiaye daa bàyyi di taalibeeb Cheikh Thioune Ndiaye mu Cheikh Amadou Ndiaye daa bàyyi kon moom tamit xalaat bu rafet boobu ci lay woo ñépp nag góor jigéen mag ndaw bàyyiwul kenn ku mënta jàng alxuraan mën ngaa jàng salaatu ala nabi loolu lañ fa soxla bis la boo xam ne daal yàlla képp a ko tax di jóg ndax kuy ñaanal ay way ju dawlu dem ba ca armeel ya na la wóor ni àdduna nekkutul sa xel teg nga fee àdduna dëgmal sa borom kon nag loolee ci la ñu woo ñëpp barab boo xam ne fa la ñëpp di mujj nag buñ la fa wooyee wax dëgg yàlla yow waroo gàntu teel faa dem ñaanal sa bopp bala nga faa dem ndax du jaas kon nag sëñ Alioune Thioune sa woote bi jërëjëf rafet na lool yaa ngi woo Sénégal yëpp di woo Thiès ci waa Thiès yëpp bu ko defee maa ngi jox sama doom Cheikh Thioune Ndiaye moom tam euh, Cheikh Daabay Thioune moom tam mu wax daayira yi nga xam ne war nañ faa teew ngeen baal ñu wax ko salaam bis bi nag ala ñu ngi ciy mboo ñu ngi ciy woo mbooleem waa Thiès gépp ak mbooleem fu jurit ne ci àdduna di dégg suñu baat waa daara yi Cheikh Mor Ndiaye Daabay moom moo jiitu ci daayira daara yi daara yi fa war a teew yëpp daara yi Cheikh Mor Ndiaye Daabay ak mbooleem daay daara daara yi ko wër yëpp ñu ngi leen di woo ci bis boobu waa daara yi Boubacar Boubacar Diop daara yi Boubacar Diop mu koy wax bu Diop Boubacar Diop ak waa taaxi kaw yëpp ak kër Cheikh ak waa kër maam Alhaaji Njëgën ak waa këri kaw ak waa Madina Fall ak kaw sara ak waa Thiès yëpp bàyyi wuñu kenn lépp képp ku wër Thiès lu war Thiès rek boo déggee suñu annonce rek war na la ci bis bi ni ko bàyyi mun njaay cun waxee bisub alxuraan la bisub salaatu ala nabi la ngir way dawlu yëpp barke alxuraan jërëjëf waaw moom day sëñ Cheikh cun njaay nee na xanaa gën a doolee sant yàlla rek nee na yàlla mi nga xam ni ci ak mbaaxam teewloowaat la nañu ci bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmalaat di bis bu am solo ni ko Baye Mun Njaay ci mi waxee léegi ndax kii nga xam ne moo ko sos tàmbali ko mu Seydina Alioune Thioune defu ko benn yoon ngir ñaanal ay waajuram képp nag ndax armeel yoo mën a dem rek saa yoo ca duggee di nga gis xabru boo xam ni xam nga ni ñii day seeni mbokk gëj nañ fa lool fa tabaarakallaahu mu am yéene moom woo daara yi nga xam ne ñoo jàng alxuraan yépp ñu daje ci biis boobu ngir ñaanal fépp foo xam na ne way dawul tëdd na fa ci biir suuf rek ak fépp fu jullit tëdd ci biir suuf ci àdduna rek ñoo bokk ñaan googu bu ko defee nag bu ñu noppee ci alxuraan ja ndax Cheikh Mor Ndiaye Dabaye dafa daan wax ni lépp lu ñu bëgg lu ñu mën a jàng ngir jot ca loola nee na alxuraan moo ci gën a yaakaaru daana waxit ni lépp lu ñu ragal ngir mën a jàng ngir mucc ca loola alxuraan moo ci gën a yaakaaru moo tax Seydina woote bis boobu muy bisu alxuraanul karim defe ko fenn nag lu dul ci armeer ya taqaloog armeer jege leen lool ñu ni ñaanal bu ñu noppee ci alxuraan ja salaatu ala nabi ndax lépp lu dul alxuraan rek salaatu ala nabi maa ngi ci sa kaw fas nañ ko fas nañ jàng ñaar yëpp nag bu ñu noppee nag fas nañ def fi daawutam te bàyyi la seen borom ñu ñëpp kon yàlla nañ ko yàlla teewloo ñun ñëpp kon nag daa daara yi lim yëpp daara yi alxuraan yi ñu ngi leen di woo ca bis booba di ñaan yàlla it nag lépp lu ñu fa jàng yàlla na ya yàlla na ko yàlla nangu bu ko yàlla nangoo yàlla na ko jébbal ñan koy ñaanal yàlla nañ ko teewaat na ngeen déwén ki sos bis bi it te lépp di baax rek lépp di xéewal yàlla na yàlla guddal fanam ba mu yàgg koo sos taxawal lool ay yoon yoon yoon bi jaahi Seydina Muhammad barki alxuraan wasalaamu aleykum wa rahmatullah